war kala moom da ngay wax li yàlla bëgg wax li mu wax waaye doo moom jamono waaw da ngay wax li yàlla bëgg wax li mu wax jamono li muy neex neex wax nañ ci li wax wax nañ ci li mu bëgg waaye moomunu jamono moo moom jamono soppandiku waayam xew na te dafa wax ñaar dafa wax ni kanam gu ma bind fasatuma ko yéenee bind ruus naa bind kanam bindat ruus naa bind kanam juum bindat kooku wane na kattanam mu dellu wax ni fasuma yéenee baamu jamono moo tax nag mag yi li seen jamonoy neex neex dana koy mën a nett waaye mënuñu jug ni ñoom et pourtant ku nekk jugal a neex waaye nga xam ni yàlla jamono mag ñi dootu ko bàmm may na leen la mu leen may may leen lépp lu mu leen war desee seen gannaaw lay gën a ci sa xol moo di njaboot yi la wër dañuy namm waxtu wu ne la ñu gisoon dellu te yàlla wax ni dootul baamu jamono te la tax muy metti cheikh bu sañoon def ni yonent bi mënu ko yàlla du du du baamoo jamono yonent bi ci cheikh Cheikh Al Hadj Omar bu sañoon technicien mënu ko jamono Cheikh yàlla du ko baamoo ci Cheikh Al Hadj Omar Cheikh Al Hadj Malick bu sañoon def ni Cheikh Al Hadj Omar mënu ko yàlla du baamoo jamono Cheikh Al Hadj Omar ci Cheikh Al Hadj Malick Cheikh Al Khalifa bu sañoon bi Cheikh Al Hadj Malick def mu def ko ni jamono mel jamono mel ko mënu yàlla du ja du jaamoo jamono Cheikh El Hadj Malick ci jamono Cheikh El Khalid fii kon bu ñu sañoon nëppam gëmu daan nëpp fukki at ñu di ko fa fekk tànkam ya mu toog toogaay yu yar ko teg ku ñëw fekk ko fa ku dem bàyyi ku ñëw wax mu ne fii kon bu ñu mëtam gëmu daan lépp di toog ci kan di ko toj toj tànkam yamuy toog toogaay yu yar ba di ko satu ku ñëw fekk ko fa dem bàyyi ku ñëw wax mu ni la tabarkal nga tàllal sa loxo mu ñaanal la nga gàtt mu gàddam ci bu dee wax dee dégg kàddu bu ñu xamee saya ci nekk ba faw waaye am na waaw waaw dafa am na ko nag lii rek a tiite toog di xoolante di nettali di woon démb rek waaye yu neexoon démb yëpp du man nekkati nag waaw du man nekkati